asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëtt yéenekaay yi ñu xëyandool tey jile ci àjjuma ji nag li leen gën a soxal mooy réunion bi amoon démb ci pale jëmale ci wàllu mbas mi te njiitu réew mi jël ci ay mesures yu yees waxtaane nañu it jébbal bi ñu doon jébbal suñu borom ñeenteelu xalif bu Medina bàyyi di Cheikh Ahmed Tidiane Niass dañu koy door ak Sud Quotidien nee na ginnaaw bi mu nemmeekoo ni ñenn ci askan wi daal dañoo bàyyeeku bu baax a baax jëmale ci mesure yi ñu jëloon ngir xeex mbas mi mag Macky mi ngi araftu bu baax a baax nee na bu ñu moyul état d'urgence bi si boppam la nar a delloo si bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication ci conseil présidentiel bi ñu doon amal démb njiitu réew mi daal dafa dëgëral ay kàddoom réunion boo xam ne nag ñi fa teewoon muy képp koo xam ne daal dangaa laale jëmale ci xeex mbas mi ci suñu réew njiitu réew mi yëkkati yi le kàddu dàqul benn yoon ab état d'urgence si yenn ci ay gox bu dee daal bile situation day wéy suñu naataango yi fare ci avenue Bourguiba di ñu xamal ne fi mu toll nii daal tere na lii ñu duppee ay cérémonie de levée du corps ci l'hôpital yi teg ci it lépp lu jëm ci ay dëj wala bépp xew bu mun a doon njiitu réew mi ne yooyu le xew sax fi mu toll nii dañ kaa talul benn yoon yëkkati na it ay kàddu yu dëgër a dëgër di fàttali ni takk masque ni mu waree ak saa ne du ci deltu gannaaw njiitu réew mi dellu si na bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moom la ci taskatu xibaar yi di amal nee na nag ñoom lenn daal war nañ ko bàyyi xel li xew biti réew amu fi kon boog nañu bàyyi daal di tiital askan wi ndax jaru ko ñaawlu na it yenn ci ay malade yoo xam ne daal dañoo lànk kaare ne du ñu dem ci centre yi nga xam ne fa la ñuy fajee mbas mi ci loolu la sax l'enquête di ñu xamal ne ginnaaw gu ñu dumooyoo woon l'hôpital ñu bëri ci askan wi nag ñi ngi tàmbalewaat di fa dem wante day fekk ñu loof lool ñu dellu si si conseil présidentiel bi amoon démb ci pale bi ak waa critique ngir xeex mbas mi nag ndakaaru njaay la ñu ko war a dooree ndax fii la gën a lawee moo tax waa laas di ñu xamal ne nguur gi fi mu toll nii dafa gën a dëgëral mbir yi jëmale ci xeex mbas moomule démb président de la république dafa araftu bu baax a baax askan mi nga xam ne ñoo ne ci réew mi rawatina ñi faree ci ndakaaru ginnaaw gi nga xam ne nag mbas mi samp na fi bu baax a baax ci réunion boobu nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci palais bi waa soleil di ñu xamal ne am na ay mesures yu yees yoo xam ne moom lañ fa jël ci dénkaane yi nga xam ne moom la comité bi ñu teg ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu épidémie bokk na ca nag ñu teel a saytu maladie rawatina ñi nga xam ne dañoo amee yeneen i jàngoro balaa Covid 19 beneen dénkaane bu kuréel gi def it bokk na ca ñu fexe ba tekk ay jumtukaay yu mucc ayib te méngoog jamono ci biir l'hôpital yi lii quotidien moom ne lenn daal la seetlu président Macky sàll ni daal la cay doxalee day def benn jéego ca kanam defaat yeneen ñaar ca gannaaw maanaam daal fi mu taxaw wu fa meetar suñu naataangoo yi di ñu xamal ne gouvernement Sénégal daal dafa mel ne fi ñu Covid 19 bi lay yóbbu dëkk ëlëm mi ngi woy di yokku teg ci di faati bakkan ndax ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñàq nañ ci seen bakkan démb ci alxamis bi nag ñu ñuy xamal ne téeméeri doomi aadama yu yees yu toftal juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo amee doomu jàngoro bi libération di xamal ne ci ñaari bés ñi amee doomu jàngoro bi toll nañu ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci suñu réew teg ci juróom-ñeenti doomi aadama ñàq ci seen bakkan beneen xët boo xam ne it ëttu yéenikaay waxtaane nañu ko bu baax a baax jébbal bi ñu doon jébbal suñu borom ñeenteelu xalif bu bàyyi démb ca Kaolack Vox Populi ne askan wu bëree bëree fa teewoon ngir gunge Pape Cheikh ci këram gu mujj dem ci wetu Baye Niass ba abadan allahu akbar ak laa ilaha illallah jib na bu baax a baax démb ca Medina bàyyi waa tribune di tàggatoog bàyyi Cheikh di xamle ne démb ay kilifa yu bëree bëri ñoo fa teewoon ñoom it ngir gunge ci këram gu mujj Pape Cheikh alxamis bii daal kenn dootu ko fàtte direct news yi dellu si na si mbir moomule ne àdduna wërngal këpp ci boppam moo doon sargal ak màggal Medina Baye président bu Nigéria di Mohamed Buhari teewoon na fa ak yenn gouverneur yu bëri yu foofu foofule ca Nigéria l'info waxtaane ñu jeexital bu bon bi nga xam ne moom la Covid 19 am ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu oto yi njaay mi wàcc na bu baax a baax concessionnaire yi jaaxle lañ def teg ci it am na ñeneen ñoo xam ne dañoo ñëw di xëccoog ñoom marché bi te teguñu ko ci yoon ñu wax ba tey ci wàllu koom ak waa libération li soxal mooy compteur yi nga xam ne moom la waa Akili doon jaay Senelec bi tey nii lan la contrat bi amoon ci diggam ak Akili lii libération ne mi ngi ko def nag te xaaru ci benn yoon décision bu tribunal mi ngi ko amal ci ñeenti fan ci weeru août bi ñu ne les échos moom di ñu waxtaanee dal bi ñu daloon ci seen màkkaan amal fa ay yàqu-yàqu yu bëri mu ñuy xamal ne agresseurs yooyu danañ deltuwaat ci kanamu juge bi ñu ñuy xamal ne sax kenn ci agresseurs yooyu le ab étudiant la nekk ci licence de droit ma di Sagna moom ñaaw lu mbir mi bu baax a baax nit lii daal du ko méngale lenn lu dul ab terrorisme nag moom président ba di Alassane Dramane Ouattara démb la xamle ne dana sampaat ndëndëm ngir laajtewaat réew mi ci ñetteelu yoon bi loolu tax ba suñu naataangoo yi fare ci Vox Populi di samp ab laaj ci yàgg yi ñuy yàgg ci bopp réew yi ci Côte d'Ivoire Guinée ak Sénégal Ouattara dafa moy ci bopp réew mi kon konde it tegu ca yoon ba waa Vox Populi ne leen nag li leen jaaxal fi mu toll nii mooy Macky sàll moom nan la nar a doxalee jëmale ci wàllu troisième mandat ñu jàll ci wàllu tàggat yaram door ko ak waa SAD bi ñuy waxtaanee wàllu huitième de finale retour ci kanamu Lyon ak City di ñu xamal ne Juve ak Real moom lenn rek moo leen war mooy am ndam SAD bi ñu waxtaanee it wàllu Premier League rawatina jéego yu am solo yi nga xam ne moom la ñu fay amal mu ñuy xamal ne Sadio ak Ronaldo ñoo ci xarañ tolloo ay jéego ñu jeexale kook waa sunu lomb di waxtaanee wàllu école Balla Gaye deltu gannaaw lañ ci gën a nemmeeku. am nañu juróom-ñaari victoire ak juróom-ñetti lajj Balla Gaye 2 bi nga xam ne moo ko jiite ma ngay dallu ci jamono ji Elton moom lañ doon séntu si moom gisuñu ko sunu lamb dellu si it ci juróomeelu saison blanche bu so ko sim Lamine Golo xam la suñu naataangoo yi ne am na lu ko métti ndax mébétam moo doon gañe sunu làmb door bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenikaay yi ñu xëye ndool ñu yendoog jàmm bonjour Le conseil présidentiel sur la Covid-19 tenu au palais hier ainsi que les nouvelles mesures prises par le chef de l'État et l'inhumation du quatrième khalife de Médina tels sont les sujets relayés par la presse du jour. Relâchement des Sénégalais face à la Covid-19, Macky menace de ramener l'état d'urgence. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que le chef de l'État a haussé le ton lors d'un conseil présidentiel personnalités impliquées dans la riposte contre le nouveau coronavirus. Je n'exclus pas de recourir à des états d'urgence localisés si cette situation doit perdurer, a déclaré d'un ton ferme le président de la République. Le confrère de l'avenue Bourguiba souligne que pour le moment, il interdit l'organisation des cérémonies de levée du corps dans les hôpitaux ainsi que les cérémonies familiales qui s'en suivent. Ce n'est pas le moment de faire des rassemblements festifs ou autres, a t sur le port correcte et obligatoire du masque. Toujours dans les colonnes de Sud Quotidien, le chef de l'État a parlé d'une couverture médiatique alarmiste au sujet de la pandémie dans le pays. La situation du pays n'est guère inconfortable comparée à certains pays, donc il lance un appel à la presse. Il ne sert à rien d'alarmer les populations et de noircir le tableau. Le chef de l'État a également dénoncé le refus de certains malades de se rendre dans les centres de traitement. Pourtant, l'enquête renseigne qu'après avoir déserté les structures sanitaires, les patients sont de retour, parfois mal en point. Ces patients qui retournent dans les hôpitaux saluent par contre le dévouement du personnel de santé. Retour sur le conseil présidentiel face au relâchement des Sénégalais vers un état d'urgence partielle. Macky veut confiner Dakar intramuros, renseigne critique. Couper le à la racine ou circonscrire la maladie au niveau de l'épicentre qu'est Dakar. L'État dresse ses signale l'AS, qui rapporte que le président de la République a proféré hier des menaces à l'encontre des populations, notamment celle de la région de Dakar où la pandémie se répand dangereusement. Lors de cette réunion d'évaluation de la riposte à la covid au Palais, Le Soleil souligne que de nouvelles décisions ont été prises pour faire face au virus. Parmi les recommandations du Comité national de gestion des épidémies figure le diagnostic précoce de la maladie chez les personnes vulnérables et le déploiement d'équipements de pointe. Pour l'I Quotidien, dans cette lutte contre la Covid-19, Macky Sall fait un pas en avant et deux pas en arrière. Selon le confrère, le gouvernement du Sénégal est dépassé par les événements que la Covid-19 nous a imposés alors que la maladie charrie avec son lot. de contamination et de mort, avec 223 décès au total et 177 nouvelles contaminations signalées hier jeudi. 283 cas et 9 morts en 48 heures, souligne Libération. La presse du jour a fortement relayé l'inhumation du quatrième calife de Baye hier à Kaolack. Vox Populi a relevé une foule et une grande ferveur à Medina Baye. Pape Cheikh repose désormais à côté de Baye Niass pour l'éternité. Les Allahu Akbar, la ilaha illallah se sont élevés dans le officielle de Medina Baye. Au revoir, Baye Cher, titre tribune, qui évoque la liesse populaire à Kaolack, relève la présence de plusieurs personnalités pour accompagner le saint homme un jeudi inoubliable. L'ultime hommage du monde au khalife de Medina Baye intéresse également Direct News. Le président du Nigeria, Mohamed Buhari, ainsi que plusieurs gouverneurs de ce pays ont pris part aux obsèques de Pape Cheikh. L'info au secteur de l'automobile et la Covid-19 avec la chute libre des ventes. Les concessionnaires entre perte de parts de marché et concurrence déloyale. Parlons toujours économie avec Libération, notamment la fourniture des compteurs intelligents à Sénélec. Bitey résilie le contrat avec Akili, informe Libération. Sans attendre la décision du tribunal, il est passé à l'acte le 4 août dernier. Les Échos renseignent qu'en ce qui concerne le saccage du journal Les l'un des jeunes agresseurs est en licence de droit et Guy Marius Sagna parle d'actes de terrorisme. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé hier qu'il se présentera pour un troisième mandat, ce qui pousse Vox Populi à écrire éternisation au pouvoir en Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. Ouattara succombe à la tentation du troisième mandat, Condé sur la voie. Qu'en sera-t-il pour Macky se demande Vox Populi. Stade le quotidien du sport nous parle des huitièmes de finale retour contre Lyon et City. La Juve et le Real condamnés à gagner, d'après le confrère. Stade s'intéresse également aux performances en Prime League, Sadio et Ronaldo comme des jumeaux. Terminons par Sunu Lamb. Sept victoires et huit défaites, l'école Balla Gaye en nette régression. Le leader Balla Gaye 2 se tape des vacances Elton, un bulldozer en panne, sunu lamb relève la cinquième saison blanche d'affilée pour Sococim et donne la parole à Lamine Golo. Il déclare "Je suis déçu. Je voulais remporter le sunu lamb d'or." C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.